tollu nañu ci benn million doomu Guinée yi dund fii ci réewum Sénégal gannaaw manifestation yi weesu nguurum Sénégal daal di teg loxo si lu toll ci juróom-ñaari fukk ak juróom-ñeent si ñoom yu amul ay kayit daal leen delloo seen réew. nañu wax fu ñu jëm ah ñun sàccuñu violewuñu wuñu defuñu dara lu xamante ni dañuy yóbbu kaso ñun jàmm lañu bëgg. te jàmm mooy lépp. instant bi moom affaire bi dafa jafe quoi parce que may ñëw fii chaque euh, chaque jour su ma ñëwee ñu ngi bu suba bu suba mais affaire bi moom moom ma jaaxal. man citoyen citoyen guinéen la euh, way man li ma gis si mi ak li ma gis suñu ambassade bi man def maa doyul. li yàlla dogal fii tey yàgg na loo gis yàlla koy dogal ngir papier assurance. soo demee soo ñëwee si dëkk jàmbur maa ngi tudd Mouhamed Diallo sama yaay nekkul Lebu sama papa nekkul Lebu ama foofu favori li ma am xaalis ci xaalis ama foofu favori. fii ci seen i ambassade fekk nañ fi ci lu toll ci téeméeri citoyen yi wut si ay kayit yooyule ngir bañ ñu delloo leen seen i dëkk. waaye mu jafe lool. waaw dama fee ñëw pour wax li ma nakkari ak li nekk si sama xol bi waaw maa ngi ni instant mi si buntu ambassade Guinée bi. dañoo ñëw pour wër géej bu dee normalement ku dem ba am 60 ans 70 ans waru rang aku am doom mbaa ku ëmb kooku waru rang bu dee dëgg-dëgg waruñu ko buux ba koy ñàkkal kersa ci samay gis-gis man sama xam-xam soriwul na loolu benn encore mun mënuñoo dàq ci biir dëkk bi ba pare ñuy ñëw fii di fatu ñu ngi buux tam ci mbedd bi boobaa ñun fan la ñuy jëm nañu wax fu ñu jëm ah ñun sàccuñu violé wuñu triandé wuñu defuñu dara lu xamante ni dañuy yóbbu kaso ñun jàmm lañu bëgg te jàmm mooy lépp lii bu demee ba am ku amul kayit bu ñëwee wër nañ ko jox respect jox ko cër mu ñibbi këram ñun am nañ ay jabar ay doom te fii lañu te nekkul fii kese lañu commencé rang ah ñuy jël 300 tickets di jox nit ñi mel ni ay 300 personnes ñoo fi nekk wala ay 500 personnes plus de millions quelques person ñoo fi nekk. lan mooy loolu ah waa léegi nag na njiitu réew mi génn wax ci na ci njiitu réew bi génn wax ci ndax ñun instant bi moom lañuy ñuy déglu ñun amuñ ja amuñu fenn fu ñuy jëm amuñu fenn fu ñuy war a dem fudul fii te fii la ñu mën a jooytu tamit jàmm lañu ñu bëgg te yàlla nañ yàlla may jàmm may mboolem julit jàmm waaw gëmuñu kenn ku dul rasulullah ak Serigne Touba man ñi maa ngi ci sama ambassade bi Guinée ambassade Guinée Conakry dama ñëw fii ma jóge Mbour ñëw fii moom dama bëgg Tchad mais instant bi moom affaire bi dafa jafe quoi parce que damay ñëw fii chaque euh, chaque jour su ma ñëwee ñu ngi wax bu suba bu suba mais affaire bi moom moom ma jaaxal parce que autorité bi moom euh, ci biir tali bi moom di ñu caxal euh, kii ni biisee pour laajte Tchad mu nu fekkee amoo Tchad moom yow xamoo foo jëm. donc boobu boobu moom maa jaaxal Cerno bi moom parce que bon euh, autorité Guinée moom daa a jël toutes les responsabilités de assurer les Guinéens qui joignent les papiers ici euh, parce que l'heure actuelle moi j'ai mon papier ici mais bon j'ai vécu combien de jours ici j'ai fait deux jours trois jours j'arrive pas d'avoir mon papier jusqu'à aujourd'hui donc euh, nous nous sommes en aujourd'hui je dormir ici Aujourd'hui encore, redormir ici pour le papier. parce que l'affaire ça m'inquiète tellement la je ne sais pas quoi dire. bi loolu weesoo it nguuru Sénégal daal di jël ab dogal daal di amal ne képp ku amul carte consulaire daañu la delloo ci réewum Guinée. problème bi fii pour papier kayit su amul kayit yi police yi da lay frontière Guinée diggante Guinée ak Sénégal consulaire. jëlul bàyyul parce que dégg naa bàyyul borom doom wala pa bàyyul mais handicapé ñi luwaa yi armée sénégalaise wax dëgg yàlla daa yërëmande handicapé depuis ma ñëw Sénégal sénégalais sonalul ma depuis 2003 maa ngi Dakar Ndiaye tey laa commencé ñëw fii moo tax ma taxaw tuuti di seddal sama xol li ma naqari fii instant nii li ma naqari fii Guinée ak Sénégal nañ jubóore loolu laa bëggoon waxtaane Macky Sall ak Alpha Condé Guinéen ñi warul melal Alpha Condé si Guinéen ñi warul melal Macky Sall loo gis yàlla koy dubal yàlla koy dogal maa ngi koy maa ngi kontaane si Macky Sall maa kontaane waa sénégalais ñi ñëpp alhamdulilah rabbil alamin sénégalais bañu ñu damay dégg ñoom te ne yeneen pollueurs sénégalais ñi xatal nañu fii na leen dagga ndox bi mu ne ndox gine Séné mu ne Guinée moo leen may Sénégal ndox loolu weddi naa ko yàlla mooy dundal dañuy wax ne Guinée yi ñoo may sénégalais ndox ñoo may courant loolu weddi naa ko yàlla mooy dundal. ak lu ci mënti am ñoom it doomu Guinée yi nga xamante ni ñoo nekk ci réewum Sénégal fas yéene wu ñu dellu eh, ci seen réew benn yoon ba tax na ñu ngi tàllal loxo état du Sénégal mu daal di leen jéggal. Euh, ce que je peux dire à les Guinéens aujourd'hui il a beaucoup de Guinéens qui sont en train de souffrir euh, aux ambassades d'ici ils viennent ici ils passent toute la journée ici sans travail sans manger sans rien faire. euh, tu viens, on te refuse euh, le, euh, comment on le carte consulaire. Parce qu'aujourd'hui, normalement, euh, ils ont descendu à 10 heures. Donc, euh, si l'autorité sénégalaise, il nous refoule, hein, l'autorité guinéenne, il nous refoule, nous, on sait pas où aller, si ce pas au cimetière. Donc, on demande à l'autorité guinéenne euh, de prendre toutes les responsabilités pour les citoyens guinéens parce qu'ils sont là, l'ambassade est là pour les citoyens guinéens. Le président Mamadi Doumbouya, il doit faire tout possible pour régler le problème des Guinéens à Sénégal parce que nous, on ne pas quoi nous, on, il nous résulte. On va, c'est par l'autre côté, on ne nous prennent aujourd'hui, où on va aller. Donc, euh, s'il veut qu'on va aller à la cimetière, il n'y a pas de problème. ca dépendra de Doumbouya, mais ce qui reste clair l'heure actuelle, euh, notre inquiétude quand même à Dakar ici, bon, euh, on va pas dire son nom. Donc l'heure actuelle, on a très très peur. Le Guinéen aujourd'hui, il vient des jours au lendemain au ambassade, mais on n'arrive pas à avoir des